centrale électrique bi ñuy woowee Thialek energie bokk ci waa son SONMES ñu nekk ay jeunes yi nga xam ni ñu nekk ay jeunes yu déterminé bëgg sunu réew nangoo liggéey liggéey sàccuñu fenuñu di xëy 8 ba 18 heures di liggéey lundi ba dimanche ñu war ñoo signer ay contrat yu leer contrat yoo xam ni nit ki da koy téye liir ko xool li ko ci neex ak li ko ci neexul ñu négocier ko ba d'accord si loolu amul fii te li fi nekk si ay emploi ëpp na 1000 emploi wala mu mat ko amul kenn kun fi signal contrat bu normal lépp basé wu ci seen ñàkk xam ak seen ñàkk jàng di leen nax di leen utilise euh, contrat yi amul signature inspection de travail lu dul signature ADC sous-traitant bi nga xam ni moom moo ñuy recruter ak ñun employé bi moo ci nekk mu nekk ay faux contrat yoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp di ñu ko jox di la gëmloo ay heures superementaire yoo xam ne existé wul code du travail lu muy wax huit de temps nga war a liggéey par jour ñun onze heures de temps la ñuy liggéey onze heures de temps la liggéey par jour di liggéey lundi ba dimanche dañ koy liggéey benn dimanche la ñuy noppalu ci weer bi liggéey benn dimanche loolu moo am fii ci Solmès IPRES yi IPRES yi non damay lim problème yëpp IPRES yi euh, nu mu tuddati non IPM yi entreprise bi daggul kenn IPM ku ne sa carte IPM cent pour cent la ñoom si seen jëm bopp ñu basé ci ñàkk xam emploi yi di créer seeni facture di ñëw di dagg gaay IPM ñii ay cent mille ñii quatre-vingt-dix-sept ñii deux cent mille di ko jël di ko sàcc di ko lekk ci benn groupe bu ndaw contrat yi bu fekkee contrat yi dañ la contrat boo xam binduñu ko dañ la ko wax verbalement contrat indéterminé la dañuy liggéeyloo gëmloo nit ci ñàkk a contrat six mois nga am bu six mois jeexee ñu arrêté la bàyyi sa pointage di daw ñuy fayeeku ñoom seen salaire di ko lekk jël keneen indi teg mafia boobu moo fi am le 21 la pointage yi di jeex bu le 21 jotee pointage yi jeex da nga toog ba le 8 doogaay fayeeku le 8 ngay doogaay fayeeku euh, fàttali daal ma fàttali affaire bi kenn du ko fay. pause une kenn du ko fay fii daal comme ay journaliers ñoo fi nekk. def nga fi ñun def nañ fi man def naa fi huit mois huit mois boo fi defee six mois. ñun la sa contrat jeex na lan la ciy tegal ni la mooy say droit du mat sax deux cent mille du mat sax deux cent mille mais ñun sentiruñu liggéey inspection de travail ci biir site bi sentiruñu ko ñun sentiruñ ko te ñoom ñoo ñu war a présenté ñun nag dañuy wax ak Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane Sonko di ko wax ni ko jeunes yi nekk fii tey di ray seen bopp ñoo ko faloon mu gëm loo woon ñu ni bu toogee ci réew mi injustice ak nooteel daf fiy jeex mais xanaa ñoom yëguñu ni fii am na centrale électrique bu toll nii boo xam ne des centaines et des centaines de jeunes sénégalais ñoo ngi fi ñu leen di utiliser comme n'importe quoi di diri ay gaz di liggéey liggéey bu metti ñu boole kook di leen noot lépp ci seen ñàkk xam kase ci seen ñàkk xam inspection de travail bu fekkee moom yëg na lii am na ci part de responsabilité parce que nombre bu nekk fii nan la ñuy nekkee fii du ñu am ay contrat te entreprise bu toll nii nan lay jëlee nit sans contrat kenn signé wul fii contrat te dégg ñoom ci ci li ma dégg parce que nit la wax na la leer am na ku ma ci doon weranteel mënu ma inspection bu fiy ñëw dana fi ñëw ba dem te du fi yëg du ko yëg kon moom lan la fiy def bu fi dee daf ñëw ba ñun ba dem te ñun duñ ko yëg lan la fiy def foo contrat ya lii lii contrat la lii lii lan lay naxee lii mu ngi nii ñoom ñoo koy créer sam dëpp mu ko ah. nii nii ana ana ana si même bu dee lii contrat la ana signature inspection de travail lii lan lay jox boo waxee jéem ko kaas ñu dàq ko am na ñu fi jaar ñu bari ñu ko bëggoon a kaas ñu dàq leen mais danoo am confiance ci suñu justice bu tey am confiance si suñu premier ministre Ousmane Sonko yaakaar ni bu gisee lii danga ñu si jàppale ñun nag lii la ñu am mënuñoo xeex mënuñoo xuloo mais ñi ngi déclaré Ousmane Sonko le premier ministre ak ay ministre am lii buñ ko yegee ñu def ñu jug ci nu mu gën a gaawee ñëw contrôler entreprise bi xool lan la fi sous-traitant yi di def du fii rek du fii du fii kase mais ñun fii rek lañu mën a wax ndax fii lañu jaar du nu wax beneen entreprise donte fépp la am mais ñun ci bii la ñuy wax ndax fii lañu jaar fii lañu mën a wax li fi nekk lii la gis mais li am fii c'est du n'importe quoi amul feneen da ngay ñëw ñu waxaaleeg yow comme journalier soo xëysee ñu fay la soo xëysiwul duñ la ko fay comme journalier ménèbre lii IPRES yi IPM yi gisoo factures yi ñoom ñoo koy kere mais IPM bu fekkee yow da ngay jënd euh, euh, IPM bi 60 pour cent la la garantie soo demee ci pharmacie bi di jënd garab 40 pour cent yi foofu danga koy fay fay 60 pour cent yi ñoom ñu réglé ko ak entreprise bi mais da ngay dem IPM bi ñoom ñu la sa carte 100 pour cent la jël la jox la say garab boo ñëwee fii bu weer deewee ñu créé ñoom seen facture boo xam ñoo koy bind imprimer ko teg ko ne la IPM bi dagg na la nangam. ñoom ñooy créé facture. yi nga xam ñooy fay muy ADC Kayta muy ADC Kayta na leer waaw Ibrahima Kayta moom moo géré. ADC boobu noonu société boobu xaw ma sax ba xam état reconnaître na ko waaw loolu daal. point de presse bi yan démarche ngeen fas yéenee def. waaw démarche yi nu war a def mooy lii moo ci jiitu buñ ci paree nag déglu suñu premier ministre parce que xam naa dinañ si jot xam nga fépp nag fu ñu war a jaar dinañ fa jaar bëgguñoo wax fii la ñuy dem fii la ñuy dem ndax ñoom buñ ko xamee jiitu la fa jaay la doole moo tax bëgguñu koo wax. waaye li ci am solo daal mooy lii la ñuy njëkk a def porte presse jooytu ñi ko war a jot jot ko ñi ko war a jot nag buñ ko jotee waruñoo xaar ñun ñuy dox beneen jéego ñoom ñoo war a jug xam ni seen liggéey lañu ñëw contrôler ko parce que entreprise bi toll nii nan lay nekkee fii kenn du ko contrôler problème bi du ADC kase mais inspection de travail et les corps de contrôle yi war a contrôler entreprise yi lan mooy seen liggéey ci entreprise yi ñun c'est pas normal ñun élément yi ñoo waroon a génn tey fii toog di jooy bu doon ñoom ñi ngi def seen liggéey mais nan am yaakaar ci suñu premier ministre yaakaar dina ñu si jàppale waaw merci beaucoup. man la Boubacar Ba euh, dem benn message bu ñu bëgg a jàllale rek maanaam lu ñuy ñaxtu fii te parce que man li ma ci gën a métti mooy naar yi seen virement dina dugg benn avant bu ñuy jot seen seen avance la ñuy jot suñu salaire loolu moom ma ci gën a métti lii nag dañ ci bëgg a taxaw ci loo xamante ni mooy tëggum ndënd séméñ pare nañ nag pour ñoom lu ñu bëgg ñu fekk si leen ci sincèrement. lan moo waaw loolu loolu loolu loolu ñoom la dañ leen respecté ñu respecté wu ñu uñu ñu ay nit faalaw ñu ñu seen virement dina dem bu yàgg bu ñuy jot seen avance la ñuy joog a jot suñu salaire te ñu dëkk ci dëkk bi fii. entreprise bi ko moom naar la. entreprise ban moom naar la waaw naar la mais teewul ñun ñu fiy liggéey euh, si dëkk bi lañ dëkk. dañuy doon ay responsable seen i kër seen salaire di demee ñun nag yor dañu yor jabar yor ay doom war nañu jàppale saytu mbir mi xool nan lax naka la ndax parce que li ñuy def nii pour ñun ñëpp la dañ ko xeex pour mu jóge fii léegi nag ñun message bi ñuy jàllale mooy dafa am diir bu ñu leen may ndax bi dafa yàgg def na quatre ans yàgg na fi ñuy mujjee ak ñoom nag bu ñu si réagirul ñun dinañ réagir te gaay yi dootuñu xëy si chantier bi fii luñ ci bañul nag ba ñu ko ci taxaw nañ pour loolu loolu am ci lu may wax. de IPRES ak yooyu noonu yëpp dañ koy bind fii te ñun duñ ko sentir duñ ko gis duñ ci duñ ñu ci jox benn information duñ ñu ci jox benn information mi ngi nii lii lii mooy bulletin yi xool leen fi jël ko bu baax a baax a baax a baax lii lii mooy bulletin yi lépp ngi si lépp bulletin de salaire yi lépp lii mooy seen bulletin de salaire te yow li ñu lay wax ni la ñu ngi koy versé ak yooyu doo ci gis dara duñ la ci wax dara te am na fi ñoo xam ni. liggéey nañ fi ba ba ñu leen seen contrat jeex na ñu arrêté dem seen yoon te loolu ñu leen doon wax ñi ngi leen koy verser amuñu si dara lu leen ci rendre compte ña dem nañ wuti feneen liggéey léegi nag ñun danoo considérer ni chantier bi ñun ñu fi nekk ci contrat indéterminé la ñu nekk parce que contrat yi ñu wax verbalement la du lu ñu signé désormais tey pare nan pour ñun ñu fi jot a des ci chantier bi amul kenn kun fi arrêté ti dina toog liggéey bañ ñu ci dara danañ toog liggéey ba keroog yoon di def liggéeyam ñu régler xool def contrôle xool lan moo waral njaaxum yi di fi am te li koy def ay quelques personnes la rek di jël alal jooj di ko def seen poche di insisté waat ci le premier ministre Ousmane Sonko yaakaar la nu am si yow moo dañu def lii ñu ngi lay ñaan boo déggee lii nga def nga jug ci nu mu gën a gaawee jàppale ñu xam ne ay xale yu ndaw a ngi fi yu war a taxawal famille am na ñu yor famille am na ay mag ñoo xam tey heure bi waroon na leen a fekk ñu toog seen kër. mais bëgg lu ñu yóbbu seen kër moo tax ñu ne fi te ñu ngi leen di utiliser bari nañ fi ñu bari nag xëy na ñemew ñëw sax ñëw assister ndax jaay doole gi leen di jaay doole ku ci génn wax lu mel ni ñu dàq la mais am nañ ci moom confiance le premier ministre yaakaar ni bu ñu defee lii dana ñu protéger ñu ngi koy ñaan mu jug ci lii jàpp ci dox ci lim ci war a dox ñu contrôler lii régler ko ci ni mu gën a gaawee merci beaucoup jërëjëf.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 tey lay tàmbali.